mbokki internet euh, Mak TV Sénégal nuyu nañ leen amaat euh, mbégte àndaat ak yéen comme ni ñu koy amalee euh, bés bu jot rek ñu fas yéene nag xibaar yi li si gën a fës tey dañ koy rek daal di tàmbalee ak bi nga xamante ni ñii di ay suñu ay compatriotes yu nekk fële nga xamante ni mooy ca Mali daal nañ song mu ne rek ay camionneur maanaam ay transporteurs yoo nga xamante ni rek dañoo amoon ay changement yu ñu doon yóbbu foofee nga xamante ni mooy ca Mali waaye nag ca yoon ba rek lañ leen daal di dogaale daal di leen song ba tax rek seen i yëpp ñu daal di koy ne nag la ñu daal di génn daal di daw uh, fële nga xamante ne rek mooy ca àll ba gannaaw ba nga xamante ne rek ñii di dafkatu uh, ñaawteef yooyee rek daal uh, li nga xamante ni moo di ay fetal di ko rek daal di sox jëmale ca ñoom loolee nag ñu daal di daw ba daal di rëcc waaye nag am na ñoo xamante ni mooy juróomi soldat yu nga xamante ni ay de yu nekk foofu nga xamante ni mooy ca Mali ñoom nag daal nañ si ñàkk seen bakkan gannaaw rek ba nga xamante ni jug nañ doon amal ay intervention waaye nag ñi nga xamante ni ñoo di doomu Sénégal yi moom amul kenn ko nga xamante rek Euh, daal na ñàq euh, ñàkk bakkanam même si bu nekkee sax ñi nga xamante ni moo di seen ay matériel daanaka lépp rek lañ daal di laqate ba mu euh, laq ba wow koŋ waaye nag ñoom jamono ji nag ci tiitaange lañu daal di nekk ba tax na rek ñu ngi sàkku rek ci ñi nga xamante ni ñoo di autorité sénégalaise ñu daal di intervenir nu mu gën a gaawee ba tey euh, ci xibaar yi ñu daal di nag euh, addu wax ci wàllum politique damb fa li nga xamante ni euh, mooy ca mairie bu Dakar foofee nag li nga xamante ni moo di coowal ak kees daal moom boo moytuwul dina rek daal di juraat ab coow gannaaw ba nga xamante ni kii di njiitu réew mi daal nay interdire ki nga xamante ni rek mooy maire wa di Soham Wardini pour rek mu daal di laal li nga xamante ni moo di kees d'avance boobe waaye nag teewul ki nga xamante ni nag moo di Soham moom daal nag kay laal ndax kat moom gannaaw ba nga ni rek lii di mbas mi di coronavirus gënoon na xamante ne rek moo di euh, sénégalais yi moom nag da si euh, génne pour rek daal di euh, jënd li nga xamante ni moo di ay ceeb rek daal di koy distribuer si 19 commune d' arrondissement yi nga xamante ni ñoo nekk ci ndakaaru Ndiaye Jal Diop waaye nag moom duñu sukkandikoo ci li nga xamante ni rek moo di xibaar yi nga xamante ni ñii di waa Zeko lii di waa lii Zeko ñoom daal nañ koy génne daal di xam ne ni moom moomee sax nga xamante ni moo di soxam woowoon na kii di njiitu réew mi di président de la république Macky Sall pour rek daal di koy tàggu ca loolee waaye nag kii di njiitu réew moom dafa rek bañoon waaye nag loolee tax ba ñi nga xamante ne rek ñoo di euh, municipalité bu nekk foofee ca mairie bu Dakar moom daal di rek amal ab réunion pour rek daal di euh, euh, dimbale ñi nga rek moom sax di xam ne ni daat nay woo di njiitu mi di président de la république waaye nag moom moomee dafa rek daal di woon bañ gannaaw boo xamante ni interdiroon ko rek pour mu laal boobee caisse d'avance si fàttali nag caisse d'avance boobee nag moom daanaka moo quitté moo sax daal di euh, coûté ki nga xamante ni euh, moo di euh, Khalifa Sall postam boobee nga xamante ni moo di maire bu dakaar gannaaw nag ba nga xamante ni moom moomee jëndoon na lu ay ceeb ak ay li nga xamante ni moo di ay dugub rek doon ko séddale ci ñi nga xamante ni rek moo di population bi loolee nag daal di koy sax bañ ko daal di koy coûté sax li nga xamante ni moo di postam boobee gannaaw ba nga xamante ni rek daal nañ koy condamné lu tollook cinq ans de prison ferme ci procès bi nga xamante ni sax moom daal na duré daanaka lu toll rek ak ñetti weer ba tey ci xibaar yi ñu àddu nag wax ci leneen wax nag ci coow li nga xamante ni mooy euh, coowal euh, passeport euh, diplomatique yi nga xamante ni daanaka moo laal ñaari député benn Bokk Yaakaar yi nga xamante ni depuis boobu ba tey moom li nga xamante ni de seen tur yi moom daanaka bés bu jot rek ñu daal di ba tax na ndiki démb ca bureau bu assemblée nationale bi nga xamante ni ñoom doo ngi doon amal ab réunion boobee sax ki nga xamante ni mooy di Moustapha Niass nekk njiit foofee ci assemblée nationale moo ko doon présider foofee nag gannaaw boo nga xamante sax ñoom daal nañuy fixé li nga xamante ni moo di date ouverture session unique bi nga xamante ni ñu ngi ko euh, ki nga xamante ni moo di euh, Moustapha Niass moom nag kii di député bi di Cheikh Mbacké Dolly moom daal na koy euh, interpellé li nga xamante ni rek moo di mbiru trafic de passeport diplomatique yooyu nga xamante ni dafa rek impliqué lu ñaari seen ay collègues yoo nga xamante ni ñoo ngi ci mouvance présidentielle bi bokk rek ci Benno Bokk Yaakaar waaye nag ki nga xamante ni moo di Moustapha Niass moom li mu daal di ta li di tontu ki nga xamante ni moo di rek kii di euh, Cheikh Mbacke Dolly moom euh, da ko rek euh, daal di xamal ni boobe dossier nag ndiki jamono ji muy wax ak moom daal amul benn rek lettre bu nga xamante ni daal nay jógee fu mu mën doon pour rek daal di atterrir si moom moomee ba tax na moom Moustapha Niass li mu daal di xam ne mooy que ni boobe boobe dossier moom jamono ji daal egseegul ci loxoom ba tax na rek amul leen lu nga xamante ni mën na ko si rek daal di wax ci mbir moomee sax la ñuy desandi ba tey wax nag ci yeneen ñaari nit yoo xamante ni moom daat nañ si euh, laale mu rek euh, ki nga xamante ne rek moo di euh, kilifa ak Simon moom moomee sax même bu nekkee ni seen ay dossier bokkul moom nag ñoom ñaar ñoo ñu bokk rek li nga xamante ni moom lañ leen rek daal di toppee gannaaw nag ay vidéo yi nga xamante ni publier nañ ko ñoom ñu si daal di wane rek dañuy daal di trafiquer li nga xamante ni mooy ay passeport diplomatique loolee nag ki nga xamante ni moo di Fou Malade moom it bokk ci li nga xamante ni di mouvement Y moom nag nag daal dinay addu daal di jëmale ca boobee mbir gannaaw boo nga xamante ni euh, daal dinañ koy invité foo nga xamante mooy ca rajo bi ñuy naan euh, Sud FM moom euh, ki nga xamante ni moo di Fou Malade nag nekk ay xarit bu baax ci ñi nga xamante ni moo di kii di Kilifeu ak Simon moom nag daal dinay xam na ni boobee dossier nag dafay métti rek pour mu daal si addu ndax kat moom ñaari nit yu xamante ni daanaka seen addu ñoom ñoo ko daal di ànd am mën noo nag ay combat yu bëree duggandoo kaso waaye te génnloo ba tax na rek loolee moom dafay métti pour moom rek mu daal di si addu ba tax na rek moom moomee daal dinañ ni euh, a euh, ni moom la ñu génnee moo tax rek moom pour mu wax si dafay rek euh, daal na yu bëri yoo nga xamante ni moom bu nekkee da nga koy woote wala sax nga daal di koy wuyoo moom dafa am rek yu bëri yoo xamante ni rek da nga koy rek daal di moytu ndax kat dafay fekk nit ñu bëri rek wala teg bët ba daf na rek lépp loo daf rek dañ koy rek daal di fësal ci dëkk bi Afrique loolee nag kii di Fumulaat moom ko doon xamle gannaaw boo xamante ni invité nañ ko fële nga xamante ni rek mooy ca euh, Sud dañuy wéy ak yéen rek ba tey euh, ci xibaar yi daal di nag euh, wax ci euh, drame bi nga xamante ni daanaka am na ndikki démb fa fële nga xamante ni mooy ca Kafountine mu nekkoon rek benn gaal goo nga xamante ni dafa yeboon rek ay footballeur ak seen i ay supporters boobee gaal nag moo daal di suux foofee nga xamante ni mooy ca Kafountine ca ay booru 7 heures 7 heures et demi loole nag bilan ba li ñu daal di xamal mooy que ni ñaari supportrices yoo xamante ni ñoo àndoon nag seen i ay boobee nag moom ñoom daal nañu rek daal di ñàkk seen bakkan. ASC bi ñu àndaloon sax di ASC euh, Kerwan nekk nag benn ASC bu nga xamante ni euh, mu ngi nekk foofee nga xamante ni mooy ca euh, commune bu Kafentine ñoom ñaar ñooñee sax ñuy daal di xamal ni kenn ki mu ngi tudd Lalla Koli keneen ki nag daal di tudd Marietou Mané ñoom ñaar ñëpp nag daal di ñàkk seen bakkan gannaaw boo xamante ne rek gaal ga daal di nay suux waaye nag ñoo ngi daal di xamal ni lu tolloog rek juróom-ñetti doomu aadama it ñoom it daal nañ si am ay gaañu gaañu ñoom sax ñu ngi daal di xam ni boobe gaal nag ñoo ngi ko daal di jëloon pour rek daal di dem disputé benn match boo xamante ni rek mu ngi waroon am si seen diggante maanaam si seen yoo nga xamante ni di ay phase départementale yoo nga xamante ni waroon nañ ko amal euh, foofe ca Bignona ñoom sax ñu ñu daal di xamal ni ñu ngi woon jóge ca benn île bu ñu naan euh, île de euh, Cuba pour rek daal di dem disputé seen match boobee ñu ngi daal di xamal nag ñoom nag ab jéye moo leen si rek mujjee fekk ndax kat seen gaal googee dafa mujjee suux ba ñaari doomu aadama si ñoom daal si ñàkk seen bakkan ak juróom-ñetti doomu aadama yoo xamante ni am nañ si ay gaañu gaañu kenn ki sax ñu ngi daal di xamal xamal ni ñii di autorité administrative yi moom sa saa dañoo rek daal ñëw ca lieu bi nga xamante ni la jëye ba daal amee corps santé bu nekk ca Bignona waaye nag ñu ngi daal xamal ni ab enquête moom daal dañ koy ubbi pour rek daal xam carrément lan rek daal waral boobee Jëy ba tey euh, ci xibaar rek ñu daal di waxaat nag euh, ci beneen euh, jéye bu nga xamante ni mu nga amee nag ca kaw tali bi ndiki démb ba tey mu nekk nag ca booru Gosaas gannaaw nag ab accident bu méttee métti bu nga xamante ni mu ngi rek daal di am ca booru ñebel daanaka 4 kilomètres bu dëkk bi nga xamante ni mooy Gosaas ñuy daal di xam ne nag benn oto la bu nga xamante ni type l cent la nekk marque Mitsubishi bu nga xamante ni moom moom nag moo daal di dérapé daal di rek daanu ba tax na rek ñoo ngi daal di xamal ni lu tolloog rek juróomi doom doomu aadama ñoom daat nañ si euh, ñàkk seen bakkan ca saase euh, li bokk si benn xale bu nga xamante ni daanaka moom mu ngi amoon rek lu tolloog euh, cinq bu ñu daal di xam ne ni lu tolloog ñeenti blessé moom daat nañ leen yóbbu ca hôpital régional bu Fatick ak bu bu gannaaw ba di waa sapeur pompier daat nañuy ñëw daal di leen nag ñëw pour rek daal di leen secourir waaye nag ñu ngi daal di xamal ni sax si ñooñee nga xamante dañoo daal di blessé kenn ki moom laata muy egg hôpital moom dafa rek daal di ci eh, ñàkk bakkanam waaye nag ñu ngi ñuy daal di xamal ba tey ni eh, loo oto boobee nga xamante ni di L200 boobee lu tolloog juróom-ñetti doomu aadama la yeboon eh, juróom-ñetti doomu aadama yooyu yëpp nag ñu ngi daal di xamal ni ca benn famille la ñu daal di bokk ndax kat ñoom ñooñu ñu nga jóge woon foofee nga xamante ni mooy ca Louga pour dem fële ca Nioro ba tax na rek ñoom mujjewuñu rek daal di egg ca jàmm ndax kat seen oto boobee dafa mooy xew ay booru midi ba tax na waa sapeur pompier bu Gossas moom corps sans vie daal leen yóbbu euh, ca structure médical boo nga xamante ni moom moo gën a jege ca dëkk ba ñuy daal di xamal ba tey it foofee am na euh, ñi nga xamante ni ñoo di waa gendarmerie moom daal nañu ubbi rek ab l'enquête pour daal di euh, élucider boobee jëye ba tey euh, ci xibaar yi ñu daal di nag wax euh, ci coowal euh, Cheikh Niass Cheikh Niass nag moo di kooke nga xamante ni moo ñàkkoon bakkanam foofee nga xamante ni mooy ca hôpital bu bu Dantec gannaaw nag ba nga xamante ni moom yóbbuwoon nañ ko fa li nga xamante ne rek mooy ca kaso ba moom nag Cheikh Niass moomee gannaaw ba nga xamante ne rek ñii di waa élément wu police moom amoon nañu ak moom ab coow gannaaw rek ba nga xamante ni ñoo ngi ko doon laaj li nga xamante ni moo di ay papier ba coow lu sew sax daal si juddu noone nag lañ ko daal di jël daal di koy yóbbu fi nga xamante ni mooy ca commissariat ba laata rek ñu koy daal di yóbbu ca kaso ba moom nag foofee nag la daal di amee ay problème ba laataa rek euh, ñu koy yóbbu ca hôpital ba mu fa fay sax mu daal di fay euh, ñàqee bakkanam moom nag Cheikh Niass nga xamante ni ñoo di waa ay famille moom dañoo rek daal di jug daal di ut ak pôle d'avocat di fexe ba li nga xamante ni rek moo di yoon ñu daal di koy def ca boobe mbir ndax kat ñoom dañoo daal di jàpp ni seen euh, doom boobee nag moom li ko daal di faat ñoom nag il faut rek ñu daal di koy xamal ba tax na rek Euh, bu ñu sukkandikoo nag ci ki nga xamante ni euh, moo di xari euh, Niass Khary Niass nag nekk sëram moom daal di xam ne ni rek ñi nga xamante ni nag ñoo di ay avocat ñoom ut nañ ko ba noppi pour rek daal di fexe ki nga xamante ni moo di seen mag boobee nag ñu daal di xool nag rek lan moo ko daal di faat ci fàttali nag moom Khary Niass moomee sax daal nañu xamal lan moo tax rek ñu daal di woon yóbbu ki nga xamante ni moo di Cheikh Niass foofee nga xamante ni mooy ca kaso ba ndax kat moom daal dinañ xam ne ni Cheikh moomee rek daal di doon génn pour rek daal di dem retiré li nga xamante ni moo di xaalis pour rek daal xamante ni mooy ca Touba gannaaw ba mu yéegee ci otam nag ñi la ko ñii di waa élément wu ni da ko fàtte këram laataa rek muy daal di yónni ko li nga xamante ni uh, moo di uh, këyitu uh, oto boobee noonee nag la ñu daal di ñii di waa élément wu police moom daal bañee loolee ba daal di jël ki nga xamante ni moo di rek Cheikh daal di koy yóbbu foofee nga xamante mooy ca poste police ba noot foofee sax la ko euh, foofu poste police boobee sax daal di tax foofee nag doo dafa génnaat ba ba muy euh, gé mujjee rek daal di euh, ñàkk ba xanam ndax kat moom gisaatul ñi nga xamante ni ñoo di seen ay mbokk ba tax na jamono ji nag ñoo ñi nga xamante ni ñoo di seen i ay mbokk rawatina nag ki nga xamante ni moo di yaayam moom daal di xam ne ni moom certes moom daal nay ñàkk ki nga xamante ni moo di doomam boobee nga xamante ni daanaka da ko wàcceeloon coono àdduna yëpp moom nag waaye nag li mu gën a def rek day daal di gëm yàlla waaye nag di sàkku rek ci ñi nga xamante ni ñoo di yoon daal di def li nga xamante ni moo di liggéeyam pour rek fexe ñu xam lan moo rek daal di faat seen euh, doom jooju. ba tey euh, ci xibaar yi nag ñu daal di wax ci tolluwaayu mbas mi di coronavirus fii si biir Sénégal gannaaw nag 1433 yoo xamante ni daal di nañ koy amal lu tolloog euh, juróom-ñaar rek ñoo mujjee am doomu jàngoro boobee nga xamante ni moo di euh, coronavirus ca noonee nag benn moo la transmission communautaire waaye nag ñu ngi daal di xamal ni lu tolloog fukk ak juróom-benn patient ñoom daal nañ leen testé ñu daal di négatif jamono ji ñu wax ak yéen nag lu tolloog grave nag ñoo nekk ca lalu sauvetage jamono ji waaye nag dee mu amul benn doomu aadama boo xamante ni moom euh, jot na see rek euh, daal di euh, ñàkk bakkanam jamono ji ñu wax ak yéen nag gannaaw ba mi dugg see Sénégal ba tey dañoo wàññi lu tolloog 73 782 cas positif ca noonu nag ñu si faj lu tolloog 71 818 am na nag lu tolloog 1858 doomu aadama yoo xamante ni jot nañ si rek daal di ñàkk seen bakkan jamono ji ñuy wax ak yéen nag lu tolloog 105 patients ñoo nekk sous traitement xibaar yi ñu daal di koy jeexalee nag ak wàllum euh, tàggat yaram wax nag ci li nga xamante ni moo di liste bi nga xamante ni kii di Alioune euh, Cissé di sélectionneur national bu euh, gaynde yi moom daat na koy publier ndikki sànq rek mu nekk nag liste bu nga xamante ne lu tolloog vingt cinq joueurs daat nañ si daal di bokk moom Alioune Cissé nag daal di am ay xamante ni daal nañ koy nemmeeku ci li nga xamante ni moo di listam boobee bokk na si nag ki nga xamante ni moo di rek latéral droite Bayern Munich bi di Bouna Sarr Bouna Sarr moom nga xamante ni moom daanaka nag lu toll tolloog a ngi nii ñu koy daal di sàkk pour mu moom di Aliou foole nga xamante mooy ca Allemagne rawatina nag ca Bayern Munich moom euh, Bouna Sarr nag kon mën nañ jàpp ni moom daal euh, euh, na koy rek daal di waaye nag bokk na si keneen ko nga xamante rek moo di Cheikh Ahmadou Bamba Dieng Bamba Dieng moomee nag nekk euh, attaquant wu Olympique de Marseille moom moomee nag jamono ji mu ràññeeku lool ci Ligue 1 bu française boobee nga xamante ni daanaka bés di euh, wane rek euh, boppam la ca des nag xam daal di miin ci ni moo di Kalidou Koulibaly ak Edouard Edouard Mendy Gana Gueye Sadio Mané ak ñi nga xamante ni ñoo di seeni ay ñooñ ñoom ñooñu ñëpp nag daal nañuy ñëwaat ci li nga xamante ni rek moo di équipe nationale bi waaye nag match yooyee nag bokk na si ñaari match yoo xamante ne war nañ ko daal di disputé benn bi nag mu nekk Sénégal ak Namibie war a am le 9 octobre ca 19h euh, nga xamante mooy ca stade bu Lat waaye nag ak beneen déplacement bu nga a am fële nga xamante ni mooy ca Namibie ñoom nag ñu war ko fubalee fële nga xamante ni euh, mooy rek ca euh, Afrique du Sud match yooyu nag bokk ci troisième journée ak bu troisième ak quatrième quatrième journée wu éliminatoire coupe du monde 2022 loolee nag mooy ndar di Mak TV TV Sénégal euh, te di leen wax toujours bu leen fàtte ak di bës cloche de notification bi pour ngeen mën a am suñu ay vidéo au temps réel